yow mi nga xam ne yaay sangu àdduna ak alaxira yaa alamal huda nee na Muhammad mooy drapeau njub ya patratim nee na Muhammad mooy weeru mat wi fil wujudi alal mada fil wujudi ci mindii fi alal mada ci lef Ya xayra xalqillaay yow mi gën ci mindeefu yàlla yi yaa man fayduho nee na woo naa ka nga xam ni akuk bëbbam rasulillahi amal baraya nee na Muhammad ay ngëneelam ak teraangaam matale ne mindii fi muntaha cig doy toll ak tàmbali yaa kaw kaban yow mi nga xam ne ay biddiw bi faaxal mu duuri salaamaaleykum ñun waa Diaspora Vision ñu ngi leen di ziar baax baax di am mbégte ci tàllal gi nga ñëw tàllal seen micro ah di ñu laaj suñu impression ci daje bi ñu daje fii ci mosquée Calcinato la Calcinato programme suñu addu bi jotoon jiitu ko am nga liggéey bi jëwriñ Abdoulaye Diallo ñu xam ko bu baax a baax ci liggéey kër sëñ Tuubaa gi ci Pontevico ak dogal nag ñu am gante ji muy sëñ euh, oustaz Alioune Sall xam na yaata ngi nii yoo xam ne euh, mu jot mu ñëw fi ah, saa yu ñëwee yegg si fi ah, ñëw ngeen dalal ko fi ci jàkk ji mu indi fi ay waxtaan saafonteeg bokki talibe ak bokki jullit yëpp ah, yàlla dogal nag Ablaye ginnaaw danoo bokk nekk a jot ñu teewe teewe si ko خطي في كل سنة وخيره من خدمة محتسنة لم يخف كوني مد والحب إلى رودته والبيت سعد وإلى وعلى آله وصحبه وهب من هذه الروح ما يرد في مكة والمدينة بلا فتن ولا كذر آمين آمين آمين يا رب العالمين وجلاس الأبيات زادا مبلغا يا خادر يا مقتدر إلى بيت العين الرامي وإلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأنما تسليم آمين يا رب العالمين

يا يعمر كل عابد شعر وحام حسن المقام دون كل مقام يا نور كل عابد شعر وحام أنت الذي أخرجنا من السلام بك نور من حضرت بالكلام بشرك الجميل يا خير معنا Imana wa itu fika sayar zakamam Ankan nabiyu wa rasul wa humam Ankan qiyadu salifi nabi zimam Laka lada Rabbil wara Umaram Laka bihi ya sayyidi Asnah Ya Jalana Ya Jalana Bahinta حمدا لمن إلهك المرام ابتداء في زائرا بذا النظام لك وقبله هديتي من ليس الفانية يسر في حروف الداعية إذا جناني إلى سامية هديتي إلى نبي شافي بشارة له خلود خالي خاليني فدور منه قليل أهمتنا ربة جهر عالية تمضي محبه وتخفي غالية لأحمد المختار قدس العافيه عافية تلوم ليس عافية درجة المختار ليس قافية إذ الحياة للعباد الشافية

par une triple représentation pour imam al-Ustaz ima kene jàmm rahim ma الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi fi teew ñoo ngi nuyu ñëpp góor ñi ak jigéen ñi mag yaa ndaw Anteriormente sta salutando tutta la platea di presente, sia maschi sia di eh, sant yàlla ci daje bu am maanaam bi nga xam ne moo ñu fi boole tey Ringrazio bene il Signore, ringrazio Dio per il fatto che ci ha fatto venire qui tutti quanti oggi. di dalal ak nuyoo nag suñu gan bu tedd bii a Oustaz fa un saluto personale, un saluto particolare al, al nostro ospite oggi. al oustaz Alioune naa ne dee yi ñu wër ñoom soxlaatu ñu euh, nga xam ne jombut ñu ñu ko ñu xamal leen ne kenn ci euh, ñi nga xam ne ñoo nànk diine ji ak xam-xam diine ci biir Per quanto riguarda le altre, altre comunità che magari non lo conoscono, mi fa sapere che l'Unità fa parte di quei, quelle persone che si muovono per gestire all'Umma, il Dina e l'Islam in Senegal. yàlla dimbale ko mu am xam-xam ba noppi tamit may ko mu man koo jàllale ci anam yoo xam ne Dio l'ha aiutato, ha fatto diventare un intellettuale che sa molte cose e gli ha dato anche la capacità di poterla trasmettere alla popolazione. Eh, anche perché ce ne sono tante persone che sanno molte cose però hanno difficoltà a trasmettere le loro conoscenze alla gente foofu nag dafa mel ni fii la ko suñu borom dafale tawfiq mu ràññeeku ci nag ha detto che su quel punto lì Dio veramente l'ha dato un aiuto, un aiuto molto forte perché grazie a questo è diventato molto famoso in Senegal anche in tanti altri paesi del mondo. ndax eh, ni muy ni muy jàllale eh, ci ci ci bopp yi dafay doon ci am boo xam ne te te te gën a wàcc ci wàllu dégg ak xel dina ko wàccee ba mu tolloog moom ba mu mën ba mën a ci xel. il suo modo di fare, di, di insegnare, di trasmettere l'Islam alla popolazione è talmente bene che riesce a parlare con chiunque, dal più piccolo a quello più grande. a me lo xam ne seen xam-xam ñu ñu maaseel ci ak dégg ci niveau daanaka ñun rek lañ mën a waxal waaye mënuñoo waxal ñi nga xam ne ñoo leen raw. alcuni intellettuali riescono a a a qualunque livello am na ñeneen ñi tamit ñoo xam ne borom xam-xam lañ waaye li leen di tënk day bàyyi jombut ñeñ bokkal fu ñu féete waaye nañu ñuy wax waaye ñeñ bokkal fu ñu féete daanaka ñu bokkal Ce ne sono tante come lui che parlano, ma riescono a parlare solo con le persone con le quali fanno, hanno, fanno la stessa parte. ad esempio in Senegal ci sono diverse confraternità musulmane. Alcuni riescono a parlare solo alla confraternità alla quale fanno parte. Invece lui riesce a parlare con tutti, qualunque sia la loro posizione, qualunque sia il loro, il loro livello yàlla eh, digal na ko amul amul frontière ci ci ci ci kër yi ñu On a éliminé les barrières casées de la de l'islam au Sénégal. C'est dico le barrière casées non casées pour nostre persone, ma tipo ad esempio i capi religiosi. Diversi capi religiosi che sono in Senegal, anche se lui non fa parte in quel gruppo lì, riesce a parlare con loro, a

Quando esci la materia lì, loro non hanno più nulla da dire. Lui invece sa parlare praticamente su tutte le materie. yéem ak rek ci li ñu jàng ci téere yi waaye li ñuy dund nag tamit guddee bëccëg loolee tamit ma wax ma wax ko li li li Dice che lui non si limita solo su quello che ha appreso sui libri sacri, ma anche su, sulla vita sociale. Quindi è un professore Unustas, ma che, come si dice da noi, è a livello dei più giovani, ma a livello di tutti. Riesce a parlare con tutti, anche perché lui è, con, è connesso, è un Ustaz connesso. La parola connesso in questo periodo qua tutti lo, lo sappiamo, bisogna essere online per, per vedere tutto, sapere tutto.

koy fàttali tes vitesses et pourtant accorda yaa ngi dajale solution. waaw kon ngir bañ a guddal daal ñu xam ne daal am ñu gan bu mag boo xam ne diin rek ko ñor mi ngi daara yoo xam ne macha allah euh, te léegi rek ñu ngi waxtaan ci ay doxinam ci daara ji ak ni ñuy sawarloo gone yi ci anam boo xam ne bii miinuñu ko fa. waaw loolu lépp nag ci tawfeex suñu borom la ak pas-pasam boo xam ne ñu ngi ñaan suñu borom daal mu gën koo dëgëral gën koo dooleel te mottali ko mboolem ay ha detto per non dilinguare molto, dice solo una cosa, lui ha molte scuole coraniche in Senegal dove la popolazione porta i loro figli, i bambini che vanno a studiare e imparare il Corano e lui riesce a inculcare la religione musulmana nelle teste dei ragazzi che siano piccoli che siano grandi. Quindi eh, gli augura una lunga vita, chiede che Dio gli dà una mano

ñaari diine yi benn macha allah marocain yi égyptien xeet ma ne daal fii daal mooy ci ay góor ak jigéen ñëpp nag àndandoo ngir yàlla jàppalante ngir yàlla kon nag lay ko oustaz benvenuto come hai visto qui sono varie comunità la comunità del Senegal la Guinea Pakistan Marocco quindi ha detto una parola qui c'è l'Islam punto kon nag baax na ñu dëgg foofu balay waxtu bi gën a lële. diamo la parole adesso al Oustaz Alioune Sall. ëpp chance ñu ko dul dégg ci wolof bëggoon naa dégg nag li ngay làkk ba man ma man koo làkk ni Quindi ha detto che lo lasciamo parlare. Io prendo nota. Quando ha finito faccio un

ay dal ci moom fële ci géej ci président di nuyu président Fall nuyu ñëpp di am mbégte lool ndax ci biir dàq ji leen daan waxtaane daa mel ni tey bu ñu ci biir buñ ci mën a toog mu ñëpp loolu ak jëm kanam la yàlla na gën a jëm kanam maa ngi jigéen ñi di leen jox cëru jigéen لنا البركة التوفيق سانخ بي نموكم باخمي جوغي ويكتي القصيدة قريب ومدن يكتي فعم كمك كل محمد sëriñ bi ci moom la ñuy ak ci xasida ma bëgg def ab jotaay bu jëm ci kooku noonu di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ruux yi duñ ci doyal jëmm ci doyal fu ci waaye soo xamee ba xam ne yëg ne soo yëgoon yokk yomoon génn góor ca Louga Alaaji Abbas Sall góor gu mën na jàngale la bu nuyu jàll Muhammad li ko métti ci ñun mooy danañ dund ba faatu te li ñuy xam ci moom mooy li ñuy xam ci garab geeg te muy garabu maam nee na dañuy toog ci ker gi xam ne lii garab la xam ne ker la dafa déconnecté woon te bu ñu déconnecté ñun lay wàññi mais sunu borom du ko wàññi dara ñun ñëpp ñu déconnecté ba mu des nombre bu tuuti ni ko ni mu ko jàngalee nombre bu tuuti boobu sunu borom bëgg nag mu yokk ndax moonu ji moom nag jiga ko mu yónni ay yónni di yónni ay yonent di yónni ay yonent ba yónni cent vingt quatre mille prophètes téeméeri junni ñaar fukki junni ak ñeenti junni taxul ñu connecté te ku ñëw lii sa yitti mooy nan ngay def ba nun nu connecté waat ba mu yónnee noo am na fi junni ak ñu manque ci fukk quatre 80 personnes la connecté té xat is a good ba mu demee keneen ñëw ba mu demee keneen ñëw ba ni ngeen xamee Shuayb ni ngeen ci xamee Moussa ni ngeen ci xamee Isa ibn Maryam nangam nangam ñëpp mu tànn kenn tudd Muhammad ne ko kaay nga connecté gaañ yi lu tax suñu mag yàlla yàlla fayal ñu leen kenn ku ci nekk ñoom da ne kenn du moom ndax li tëwoon ñu bari moom daa ñëw leen si moom Sëñ Tuubaa def ne lam yabdu mithlul Mustafa Muhammadi sirran wa jahran fi baraya sama luy loolu mooy kii lim man ci connecté no ña ko jiitu woon mën na ko te mu jógee keneen du ko mën noonu day day wér fee ba du set ñu gën di wér rek وشيخ الحاج مالك بدي جن قصيدة كتب دو وسيلة المنع قاعد وقت يصير وقت بيدو دو يرى لو لم يرى في فضاع الكون تلعبه تبخ البريد في الظل ما يلا سفين وطن كم بقنعك ينها من النيو بنك يلبو لو لم يلو لا حاجة عرب mooy melax na maanaam ku ñëwoon ñu toog fii rek mu ne yundu rek demaat waaye yundu googu bu ko yundu bi defutoon kenn du ko nekk kooku xam naa di ko jàng di ko ba jeex ci moom tekk ci ñëpp yal na ko yàlla baax ba nu connecté ñun ñëpp bu yàlla bëggee mu liggéey liggéey bi mu jox ko benn document bu tudd alxuraan boo xam ne appareil yi paan ci lay xool dépanne leen dañu xam nañ ci dara ñii ne ci machine yi dañ la boole boole ben catalogue bo xamni bi su machine bi pané ñaare bo ci delloo mu dimbali la ci defaat defaraat kon bi su borom bëggé nu ko nu connecté daf ko jox téré bu tudda alquran ben document bu ma bu am solo nag nuur mubinun ata nuural mubina ibadi jamian rabbi allah téere bu am solo la malheureusement xaw ma nag bu dee bu dee ci ci Italie mais bu dee moom ñëpp ko ko am waaye fañ ko teg fa lay teg rek di fund waaw mais ni kuñ dox kopp bii rek mu doon café te nga bokk ñuy suukar café <laughs> nga téye suukar si di naan café di naan ay yàq ay gono ko jom puy mu sàpp cafka yi alxuraan nun la melaw suñu dund bi ko ko yàllay jox daf ko préparé ñaari at ñaari at yoo xam ne bu nu nekkee fii ci dëkk bi quatorze kilomètres lay génn

demal nga ne ko liggéey bi daa war a tàmbali pour mu connecté gars yi mu connecté gars yi malaaka ma ñëw fekk ko fa man li ma dem màkk yëpp musuma fa ñëwee yéeg montagne munuma moom laa tuddee sama émission boobu may wax ba Ali Imran TV waaye moom nga doon yéeg ba ci kaw am na fam pax mu dugg ca pax ma lu tax pour sàmm noppam yi sàmm xolam bi ba yooyu du ci dugg ne ko nag iqra tàmbali liggéey bi iqra tàmbali liggéey noo koy tàmbalee iqra jàngal jàngal njàngum xiraa jàngal njàngum lecture nga xam ne mën ngaa li mën ngaa liir te doo mën a liir yéen ñi yor xam ngeen ci laa suñu téléphone man de application yi ci nekk waaye ñett laa ci xam xam naa moom bii woote xam naa bii wuyu ak bii bii whatsapp waaye teewul ñu am fi ne boo imaam ku dem xam na moom cinq nga jox faal xam na neuf waaye téléphone bi rekk na téléphone bi doon na bàyyi bay sama papa yàlla ko liggéey bu yoraan téléphone bu xaalis moo boo ko yónnee crédit moom ñooy xamu ci dara gone yi ñooy jël transfert ko seen seen delloo ko téléphone waaye suñu borom na yonent bi iqra kon liggéey ba daal di tàmbali asamaan ak suuf keroog lañ jokkoo jokkaloo boobu jokkaloo boo xam ne asamaan lu xew ci suuf mu àddu mu tooy xet mu jox gaay lu xew ci suuf du ko jël ci gaay gaay ko joxe direct gis nga loolu mbirum connexion lu am solo mooy fi ne boo amee wii fii mbaa ya ca aju ba xas lonk ko ca yaag noona léegi te sunu borom bu soxlaa ci ñun dara jox ko yonent bi bu soxlaa ci moom dara mu ne ñëw leen direct iqra bismi rabbika lisi xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbuka al akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نكو من غاوات مما إلى فعل من غاوات مما إلى فعل ماتي مما إلى فعل وخويا بوا ما كانان باينا جانبنا كبدون جانبل دمنا Munyum ci kër gi connecté Sounda Khady appareil li njëkk a connecté daa ñëw ne ko dama jommi dama tiit dama feebar jottali ma mbàjj gi nga sàng ma danay wax ne bu doon nogay keroog la fa liggéey bay yem mbooleem góor ñi am jabar ji di nogay yi suñu amee problème bu toll ni problème bi jaaxle la leen di yokk ndax jëkkëri nogay toog ba trois ñu ne ko damaa jommi def naa ko xamoon nga ko xamoon nga ko comme doo toog loolu la koy wax nga di gën jaaxle waaye soxna si ne ko yow loo jot ni yow ni nga baaxe ni nga mel ni si jikko rafet naa nga ak waxaw ba jeexal mu ne ko kay jombi moom ne ko jombi woo dañ koy wutal lu lekk wutal ko lu mu sàngoo solu dàllam pour wuti solution li daara yi soxla toujours nag wutal ko lu lekk wutal ko couverture sol sa dal wuti solution waaw da leen wax ko ñoom bekaay seen ne leen boo gis muy génn daa bañ ay dongom génn am ne bañ say dongom génn foofu nga génn boo génnul ñoom ñooy génn te sa génn moo gën seenu génn lu am solo la su dee xam yi dem te war a xam noo fa ak la ca xaw lépp daañu connecté maa si Aliou Seydina Seydina Aliou am na lu xew de mooy la xaw mu ne ko yàlla mu yónni nee na ma connecté la mu ne ko ah xaaral ma tàggu sama papa mu ne ko déedéet connecté maa bàyyi rek mu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa annaka rasulullah mu connecté ko muy dëgg. ñoom Seydou mi ci kër gi tàmbali mbokk yi liggéey bi tàmbalee am résultat yonent bi di connecté nit ñi ba am 39 39 clients yoo xam ne connecté na leen commencé na di leen defar formation wut wut benn barab bu roqe. تدق الدار الاخر ابن ابي الاخر داعي دي كوفا فيك لو دي فور فورماسيون نجي البرامج نمر دي واحد نمر دي تواك ني بغنتي نانغام نانغام نيك تي نيو كو بوكو نك دو نيو بوك امول سورناليست امول كو جيمي خلاف ñoom képp yëglu bi ñu amee trente neuf am ku mag a mag ku nekk ca dëkk ba ku ñu Omar ibn Khattab ak meneen Omar wax Omar ibn Hicham yonent bu jullee rek ne yalla, maa ngi lay ñaan nga jàppale ma ma connecté kenn ci ñaar ku ma ci am

ah mu ne nopp ngeen a ñàkk réseau non seulement du ngeen ñàkk réseau mais léegi ngeen gaa yi réseau kaay ñu dem ñu dem Kaaba la yéen saaba ne ko Kaaba kan mu ne Kaaba genn la fi ana am sa mu ne maa ngi mu ne ko taxawal fee na nam nombre taxaw ci sa ginnaaw ma taxaw ginnaaw ma taxaw sama ginnaaw ñu wuti dàll tey la ñuy dëkk bi yëpp ci kër gi nag allahu akbar kabir daa wuti jàkk bokk yi liggéeyu aleyhi salaatu sa sa sa da ngay gën a séntu sa jabar comportement noo xam ne xamoo ko ci woon nga ne lu mu ne taalibe Muhammad la nga toj noonu kañ nga ma yóbbee nii da léegi nga séntu sa doom mel noo mel nga mu ne taalibe Muhammad nga toj noonu yóbbu leen ci métit xam ne kenn mënu ko wax lu tax. parce que connecté nañu te nag mbokk yi connexion yooyu dafa neex neexaay boo xam ne buñ la xasee ak am solo danaay wax ne <laughs> keroog bi Sëñ Tuubaa di nekk ci tukkeem ba te julli ga jot ca géej ga connexion bi amutoon ak réseau mel ni sama boss du ma wàcc waye connexion bi mooy boo ko boo ko doon firloo sëñ wa wafiqtu wafiqtu bi rabbil arshi moy connecté na wa wafiqtu baatu wafiqtu wafiqtu bi rabbil arshi سجود والعفو مع ma ولا لي مخلد صبر يقول خمنا وزقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى ولا لي مغلب صبر بين وزقت مع المختار بالله وحده إذا كل صوب بوجاب بيني adduna lu la fi neexati amutul ndax li gën a neex ci li neex moom la am ay ndeysaan walaysa lii amalun alqaaka yaa amali si wal mahabati moom la moom la Cheikh Alxaaji Maalik waxoon daf ne sunu borom dajeeg yow am lu may yaakaar amu ko xanaa bëgg ki nga nu yónnee rek doy na sax mbokk yi biir fii beeg nag am nañ ko ñuy wax Bilal ibnu Rabah comme dafa connecté caf koy dàq caf koy àdduna dañ ko jaaxaanal ci naaj bi naaju mel bi fii tey nga xam ne dafa am ay xeer ñu summi ko jaaxaanal ko ci xeer yi di ko jam tàngooru xeer yi di ko lakk. ñu fab lu diis teg ca gënd ba naan ko déconnecteel déconnecteel mu naan ahadul ahad ahad far loolu son bi far neex ba bu ñuy xeex Badar ñëpp moom la doon wax ñu xeex Badar affaire bi dafa neex ba ñëpp la doon wooyee ahadul ahad ahad keroog ba ko Umayya déggee nga xam ne mooy sangu Bilaal ñu ko doon tëral ca naaj wa moom daf ko dégg rek barke xam ne son bi la doon dégg këram léegi nag lu fi indi bi barkeem lan ñu Bilaal wu moo ko fi indi xaw ma Italie mais Sénégal ku rek Bilaal ngay tudd seetlu Bilaal jàkk li ñu wax ni ku noog rek ñu Bilaal jàkk te banque bi laal mbokk liggéey bi continue ñoom Amar nekk fa am na bis dafay na romb aliasin ñu ngi jaaxaan sonn lool mooy lan sabran aliasin fa inna maw'idakum al-janna gis nga foofu li fi yonent bi jàngale mooy pouvoiru politicien dafa am différence ak pouvoiru sëriñ politicien bu rombee camarade am ne ko soo jógee fii nga fekk ma nga eh, fekk ma ca permanence ba bu fa jógee doo ko fa fekk bu fay jógee rek juutu parti waaw benn mu ah, ne PDSR wala mu ne PS renouveau wala mu ne APR bu bees bu dee sëriñ moom ci diggante bi bés bi mu gën a métti ci lii gën a bëgg a dem. waaw. bu ne xalifa xalifa soo kër yi mu ñëw déedéet mun noo mun noo soxla këram. tax yonent bi rom ne sabran ala yaasin fa inna ma'idakum aljanna mi ngi leen fekk ñu gën leen ci naaj yi teg leen ñu métti di leen dóor mu ne leen su ngeen jógee ci dóor yi fekk leen ma jàkk ja bu ngeen fi doxee faatu xaar leen ma aljanna alhamdulillahi rabbil alamin ala inayatin bi ulo bil qadri yàlla alhamdulillahi rabbil alamin ala عناية بعلو الخطية يلين با فينا سجود جوك تسلي سانت بروم أرق أرق فايكو موك مولو ما يلاو مولم ملايكينا يرحمك الله يا خير الأنعام ويا مختار يلاو ملايكة يا كوني جسفوفي مي مني مي مسا والسوس والأسماء من خبر يلاو ñu dee ci dal lemes fàddu ak li weesu ndeyam dem tab yàgg na wër ngeen yéen yor yollaw kenn ka fatal xay war nañu fépp fépp fu ne mbaa ni aljana lañ dillu si yollaw maxuula aynim نظيفا طيبا نادرا مقطوع سرتي مقطوع يا الله مغلب ما نسيان waaye may ñaan ci barkeb Serigne Touba barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne si collection bii muy wax ngir yàlla ak jëmmi Seydina Muhammad képp ko barkeelu ku ko fekk fii teral ko yàlla nga connecté wu. képp ku ko teral yàlla nga connecté wu ci barkeb Seydina Muhammad sëñ bi kilifa la te fi mu jóge sori na te dimbali nu képp tax muy muy ñëw te jëmm ju jóg di wax ci sëñ bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dégg ko dégg ko rek day day faj aajo dégg turam képp day faj sa aajo adduna nga la xel muy ñëw dina waxal ci moom ba sa xol koy war ngaa yëkkati ci li nga li la yàlla jox nga teral ko ngir jëmi yàlla jërëjëf maa ngi ñaan ñu teral ko képp ku ko fekk ñu teral ko yàlla na la suñu borom teral jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla teral yàlla scusate eh, giudo un po' un'italiano stracomunitaria quello che ha detto lui, ha fatto una bella canzone per Rasul sallallahu alaihi wasallam, sta dicendo noi tutti conosciamo che è Usaz Ali Usaz, suo lavoro tutto per portare din avanti a tante eh, idare che bambini che leggono in scuola e tutto il suo eh, possibilità. Questa qua ha visto che abbiamo tanti progetti, lui ha tanti progetti, quindi lui volendo qua, arrivando qua, se aveva possibilità, trovavano il nostro progetto qua, la pagava tutto, però non ha quella possibilità. Progetto che ha a Senegal, che ha a Mua. لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر ñu filmé che dem Paris la fa xew xew mu yónnee Habasha dafa xew-xew mu yónnee al Madina ah buntu ubbeeku buntu daal di ubbeeku mu daal di fay jógee nag gàddaa yi dem Madina te demee sunu réew ñi ngeen def nii la ñuy tuddee émigré ñu ngi Sénégal de la Italie. bu dee Cheikh Bécaye Sène ñu ne moom immigré bi bu jaar ci yoon la bu dee